dal leen ak jamm mbokki internet yi safo 17 bus MTV Senegal, jangan jeuf mo ngi nono ñu dikkat tay si vidéo bu ama am solo neke ay jangat yu ama am solo jëm ci ciow li nga xamne nak jamono bi mo ngay di am ba léegi dinañ ci dikk eh, ak pièce bi nga xamne nak sénégalais ñu ko bëgg tégal gouvernement bu bees bi fi nek président basirou djumaï Diakhar fay ak premier ministre di Ousmane Sonko ñu bañ E, tabbe lu ni mel nak buñ ko waxe dina ci dekk ndax nguru president Macky Sall dafa am lu fi daf lo xamne bo wattu wattu nguur gi ñaanuñu ko e, man nañ ci tabbe e, dina ci dekk ak jangat yi nga xamne nak dinañ ko ci amal ndax gaay ñi ngi commencé wax man nañ ne wa APR yi nga xamne nak demono bi ño fess del ci opposant bi nak japp ne dal nguur gi kura kur rek dañoo wara def dara ño xamne amagul fi sax man nañ ne un mois bu mag euh, ngeen bëgg euh, nguur goo xam ne mën nañ ne def nañ fi presque euh, mille neuf cent ba léegi système boo xam ne mu ngi fi mën nañ ne douze ans yu mujj yi nguuru Macky Sall nekk ko fi ngeen bëgg si benn weer wala ñaari weer mu changé loolu moom vraiment nag moom yàkkamti dëgg dëgg dëgg la. waaw dama dégg benn ojo waa ji di wax naan Diomaye Diomaye président Diomaye Faye. basiru jamaay fay ak Ousmane Sonko li ñu leen dénk xamna ne ñoom mënuñu ko yor ye te ñoom dañu liñ doon wax sénégalais yi dara defaguñ ci dara dara amu ci <laughs> euh, moo tax ki ki di wax nii xeyna na peut-être noonu maanaam sa non mom tout temps mi ngi xaar bo defé lu baax wax bo defé lu mup lu bon mu wax lolu moom mo am mais dafa am lu bëgg wax président Bassirou Diomaye fay mom ak Ousmane Sonko limu bëgg wax moy euh, mom bis <laughs> bu nekkee dictature comme dictateur bi nga wax bu ko nekkee kon li ñuy gars yi ko ak askan wi jaxase ko ak askan wi su ko defee ñuy jëlee leen fi voilà jaru ko jaru ko de man pour man jaru ko quoi nekk foofu naan da ngay nekk dictature ak yooyu jaru ko moom na liggéey rek gis nga lu wax ji bëri bëri bëri boo liggéeyee yow bu leen faale yow liggéeyal rek voilà na wax ji bëri nga war a garaawul amul problème mais yow liggéeyal rek li nga war a liggéey. soo liggéey li nga war a liggéey gis nga ñooñ di wax wax ju bëri jooju ñoom ñoo naan ah diw mi kat mi ngi liggéey borom wax ju bëri ji moom liggéeyal rek moom nan la gis nga avancé rek moom moom <laughs> moo tax ma ne bul bañ ko wax ci yow ñoom bàyyi leen ñuy wax yow nga liggéey yow liggéeyal rek jomaay na liggéey bàyyi leen ñuy wax mais pour tëj seen gémmiñ yi moom mënut a nekk waaw wax moom ala kulli Sénégal yi kenn mënu leen ko téere wax Sénégalais moom mënoo muusu ko wax ne ba du wax loolu da ngay sonal sa bopp rek moom koy na leen bàyyi ñuy wax wax ji moom mënut a ñàkk bàyyi leen ñuy wax rek waaye ku fi wax lu waxul daan la woo teg la ci yoon kese man lii daal laa gis waaw Sénégalais moom position bu waay mënti am dinañ dinañ wax ci yow kenn mënu leen ko tere loolu cosaan la ay ati at ay junni junni at ci ginnaaw waaw cosaanu Sénégal la wax moo tax man la ñag yi loolu la ñuy tooñee. ñag ñi ñag ñag boo gis ci kaw suuf boo ko nee sénégalais mu ni c'est des grands boo xoolee Macky Sall Macky Sall li ko gën a yàqal mooy euh, dafa dafa dafa dafa dem ba ci biir di ci dugal loo xam ne du dëgg parce que ñëpp xam na ne Macky Sall euh, deux mille deux mille bi muy jël réew mi dafa ñëw wane dëgg dëgg la doon wane avant muy jël réew mi dëgg la wane. bi mu ñëwee di jël réew mi ba jël ko dëgg la doon wane parce que yéen yi fàttaliku premier discours Macky Sall Macky Sall doon wax naan man réew mi ci dëgg laa koy yor lépp war a jub même bu ma sénégalais yi dee fal benn mandat sax jar na ko sama yoon newu ci jar na ko mais man dama koy teg ci dëgg ba journaliste yi naan kii nii mooy président bu baax bi loolu def naa kenn fàttewu ko ñi ñi nga ñi nga xamante ni fekkee nañu Macky bi muy doog a tàmbali. waaw vingt cinq ministres la jëloon di wax ne indi na fi euh, OFNAC pour ñu auditer ñi fi jaar ah lu ne mu wax naan moom day teg réew mi ci dëgg la koy teg ci yoon ba ñëpp di ko tàccu naan kii mooy ku baax ki mais dafa dem ba ci biir la mu doon wax dara la ci deful Macky Sall bi mu demee ba ci biir commencé indi nag politique politicienne politique politicienne boo ko bëggee tekki mooy tappale rek. képp koo gis ñeneen day politique politicienne rek mooy tappale tappale mooy li ngay def de de un li ngay def doo ko wax askan wi ah li ngay def ci réew mi da nga koy nëbb askan wi signature yi nga doon signé yaa ngi askan wi ah ba ci affaire ressources naturelles yi feeñ yi waxoo askan wi dëgg ni ni nga ko joxee tubaab yi waxe waxu maanaam Macky daawul toog sax di rendre contre sénégal yi. te sénégalais ñoo moom seen alal dañoo bëgg njiit boo xam ne da ngay da ngay rendre compte da ngay ñëw di wax lii kat lii laa ci def lii laa ci def parce que même bi mu joxee affaire kiiw sangomar bi fële mooy teenu pétrole sangomar bi nekk ak gaz bi bi nekk diggante Mauritanie ak euh, Saint Louis bi mu ko joxee Idrissa Seck génnoon na ni que léegi yow euh, lii contrat bi man xam li ci biir xam naa li ci biir léegi yow ni nga ko joxee moom la ñu bëgg nga leeral ko Sénégalais yi mais nanguwu ci wax ba benn journaliste invité woon Idrissa Seck ni que li Macky Sall def ci ci teenu gaz boobu ak pétrole bi bi nekk diggante seen louis ak Mauritanie moom la ñu bëgg dégg nañ ni nga ciy wax moom la ñu bëgg nga leeralal ñu ci Idrissa Seck ni man su ngeen bëggee ma leeral leen ci da ngeen may fal su ngeen ma falee ma wax leen li ci nekk mais Macky dafa bëggoon yore réew ci noo xamante ne. yëf yi dafa mel na ku yoroon alali boppam nangulu leeral sénégalais yi lenn ba pare di def nag politique politicienne di tappale Macky Sall li ko xañ nguur gi lépp mooy tappale tappale moo ko xañ mais gis nga bu jub bu dëggaloon wala mu jubal wóor na yàlla kon Macky Sall même bu fiy jógee sax ci beneen façon la fiy jógee mais doon comme nii lépp looy def mooy li ma waxoon ci commencement bi lépp looy def teg ko ci dëgg. même sa soxna boo ko yoree yor ko ci dëgg soo demee wax ne mënatoo ko yor ci dëgg nga may ko baatam mu dem lépp looy def moo xam dangay sa commerce bi ngay def wala sa bureau bi nga toog wala lépp looy def teg ko ci dëgg rek boo ko tegee ci dëgg amul ku la kenn du la mën a jam naa ni amul ku la mën a jam naa ni amul kenn koo xamante ne si ni day ñëw naan kii kat lii mu def lii lii lii non tegal lépp ci dëgg rek tey jomaay ak sonko lii ñu leen jox gaay naan yan bi diis na benn yan diisu fi amul dara du fi diis li fi li fi nekk mooy ñoom nañu jéem a teg lépp ci dëgg buñ ko tegee ci dëgg jaarale ko ci dëgg suñ borom di leen yombalal yan wi te te dinañ def li ñu lépp lu ñu bëgg def dinañ ko def te duñ ci am jafe-jafe ak sénégalais yi te bu boobaa bu ñu laajaatee beneen mandat sénégalais yi dinañ leen ko joxaat mais buñ ci commencé dugal comme yi Macky Sall doon def politique gu tappale ah di def politique politicienne ah di di jël ay influenceur ay youtubeur ah di leen yabal ci palateau yi ñi lay fenal ah ngay def yoo xamante ni day leer ni ci yow ci affaire tappale nga dugg loolu boo commencé def yooyu rek yaa ngi dugg ci tappale te suñ borom bëggul tappale tey Diomaye ak Ousmane suñu demee ba commencé di jël ay influenceur wala ñu jël ay ay youtubeur wala ay ñi nga xam dañuy def live ay tiktokeur ay liveur di leen jël di leen yabal ci ay réseaux sociaux pour ñu leen di ñi leen di waxal loo xam ni defuñu ko wala ñi leen di ñi leen di wax pour ñuy wax loo xamante ne si nii pour pour nëbb askan wi dëgg loolu bés bés bu ñu duggee ci ci ci ci yooyu rek mooy que ni ñoom suñ borom moo leen di daaneel voilà lii moom maa leen ko wax. Diomaye ak bu ñëwee ba dugg ci yi nga xam ne moom la yi Macky Sall daan def buñ ci duggee rek ñoom léegi ñu commencé daanu ndax suñu borom du ànd ak koo xam ne nekkul ci dëgg suñu borom ci dëgg lay dox. voilà ñoom nañu nekk ci dëgg rek bu mettee ba metti nañu dë nañu wax dëgg askan wi su neexee ba neex nañu wax dëgg askan wi suñ ko defee rek fii ba bañ fi jógee ci jàmm rek la ñuy nekk voilà mais bu nee ba commencé indi politique policiers yi Macky Sall doon def buñ ko fi commencé def suñ borom ci boppam mooy mooy daa dee rocc mbëggeel mbëggeel bi nga xam ne askan wi bëgg na leen ko suñ borom moo koy rocc ci xolu askan wi ñi commencé leen bañ commencé leen diaboliser commencé leen saaga. ah daal di leen fiy jëlee lii kese la.